yaa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 muy drapeau Bougane su mu ne drapeau Bougane mooy drapeau Zik FM drapeau Sen TV Sen Sen TV drapeau des médias mu doon nag drapeau boo xamante ni ku ko jël dina am loo xam te dina ko def sa carrière ndax Sen TV mooy promotion des médias mooy promotion ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi caat nuyu naa la. waaw salaamaaleykum gannaaw ma jullee Yonent bi sant sama ñaari waajur xam nga di nuyu waa Wassare Lamb yëpp di di ñaar yàlla dafa leen jàmm dafa leen wér. avant tout maa ngi nuyu sama mbokk séeréer no foole séeréer mais simnaa nun ngonu fay simangol nun képp no see tole amere caade simnama sargalam rawatina jono fane genma simna nun ziyara nun simna fo séeréer fof kaatuna faya ko bon nofna ñoojo ɗi simna séeréer fof i mbaasi o leng simna sinik simna e loog i mbaasi o lengi dal ahan simna andunale fop waaw simna e loog simna sinik anda yéen sim yéen simnaa fu mu baas képp dafa seetulaa mais caatee simnaa ziyaaram xam nga di ziyaare waa ñaatal di ziyaare waa NGB bàyyi ñu kenn di ziyaare sama supporter di ziyaare sama boy nga xam ne tam moom moom mi fekkal tey sama boy laay àndal su ma amee combat suba ngoon guddi bëccëg ñoo si sonn ëpp nañ ñii sax mi xam na ñeneen ñi dañoo nekk si ay yiite quoi ay yiite jamono fan yi mais di gën gis loo xam ne gis si combat bi mm, di ziyaare ñëpp di bëggee ñëpp mais kañ nga ñibbisi dafa mel ni da nga demoon États-Unis waa ji. waaw États-Unis mais moom li taxul ma dem États-Unis nekkuloon nekkuloon gan gi quoi. que gan gi gan gi États-Unis. caat bu gars yi toog nga ne gan gi taxuloo nga dem États-Unis gan gi jar na dem États-Unis de. yàlla xam ne gan gi taxuloo ma dem États unis ba préparé ko foofu xëy dem États-Unis bi da ci tombé bi may waajee dem États-Unis boobu dama dama sama biir juste gars yi frontière yi boobu combat bi taxaw gu gars yi frontière yi yàlla def ñu nekk si nekk si ba combat bi taxaw bi combat bi taxawee nag mënuma toog di yàq sama biir ma ne xaaral ma dem comme esaay waxaguñ dara si làmb ji ma ma dem yàlla baax balaa may dem foofu ba bay toog def leneen nañ dinaa dellusiwaat làmb yi doog a taw yàlla def mu amee noonu ma ñibbi si si diggante bi combat bi. mais mais avant nga ñibbi si doo dem saal entraîné ba caag xalaat mujj ne xaaral ma yokkaat non dama dama doon États-Unis su ma ma dem états liggéey jamono yi du moom si kanam la. caat caat li ngay liggéey du pour moom mais fi mu toll nii yow ak mujj la avant ngay wax ñeneen loolu moo tax ma ne la xanaa di nga entraîné ba ci yàgg sa xel dem ci mujj nga yokku ndax fi mu toll nii mujj moo fi ne. waaw instant moom moo fi ne parce que moo nekk sama kanam moom moom moom la suñu moom. instant yii moom la moo gisee man la moo gisee ne may ànd nekk pour Modja instant yii Modja man ay dossier bu soobee yàlla yàlla mi may ay dossier am ma ko classé ba pare man ñi si kanam laay xool si kàttanu suñu borom moom lay demee mbokk yi mbokk yi yéen a moo yaa gisandoo mbokk yi yéen a ko gisandoo mais caat caat combat bi ñëwagul nga ne dossier moo ja ko nga waa xam nga xam nga boo déggee xam ah, nga boo déggee man la boo déggee man la moo deuxième deuxième dama ko classé ba pare dama ko lijjanti ba pare instant yii lépp lu ñu war lépp lu ñu war si combat bi def nañ ko muy entraînement. muy si côté social muy si doole mooy si lépp ñu ngi koy def def nañ ko ba pare andi naa samay mbok def nañ fi ñu war a dem xam nga xam wax nañu lu ñu war a wax xam nga loolu moo tax quoi mais nekkul question teg ko foo xam ne parce que moom mbër la comme man adversaire la comme mbër yëpp waaw mënu ma texe tam mënu ma def loo xam ne tam mënu tam ma dem moom bu su boppam jaru may def loo xam ne tam mënu du bokkul si man waaw jaru may def loo xam ne tam bokkul si man moom jaru ko man man instant man li si kanam laay xool mais bu bu subaa la onze. daa am ba daa am benn wax moo ko dégg mu wax si benn interview mu ne ma caat dama ko préparé ba pare doo ko jël. mu ne mu ne mu ne mu daan ko. mu ne. mais sa gars yi sa tàng. non saa xam nga xam nga saa yi boo dee yi gars yi seen yaram moo tàng saa parce que lamb lamb ji bu jour baa bu jour combat boo ñëwee boo ñëwee fii jour combat nga xam ne gars yi seen yaram daa tàng. man dama koo dékk micro arène mënuma caat li koy daan man xam naa ko te li daan liggéey naa ko te xam naa bés fi ma toll. Ah, waaw moom mu xamee moom moom mu xamee bés fu mu toll xalaatam la wax wax waxu waxu mbër la wax mais bu jour ba caat képp ku képp ku am képp ku am caat ci làmb doo nelaw. doo fanaan doo yendoor parce que say say mbokk say mbokk man nekkuma mbër boo xam ne da ngay da ngay saa saa xame jàll man man mun man mun de un de un man nekk nekkuma màgg bëre. deux damaa judd si famille bëre. sama yaay sama bëre sama papa di bëre ma sama yaay di doon bëre sama papa di bëre sama samay nijaay dañoo bëre ay champion lañ ba xam ne si dëkk bi sama sama papa même chose man ma ñëw bëgg làmb bu ma nekk à bas âge bu ma nekkee xale bëgg làmb dama daan jàng di wàcc di dem entraînement topp mbër yi bon nag yàlla def ma tar bi ñu ma ñëw booy champion d'Afrique yor ma champion du monde yor ma booy bambara def si man lu bari waaw parce que man boo gisee ba xam ne ma wax ba léegi ni moo jama maa ngi koy dégg muy wax rek lu ma ko tontu lu ma ko tontu ne le jour le jour gi lay doon si lamb yi parce man kenn xamee kenn ma wax moom ba bu jour ba dinaa ko corriger ne man man ni du ma moromam <laughs> lii de booy toogal booy toogal booy sax ñoo la gën a bëgg combat mais Thiat dama gis sa combat pass dafa yàgg te ku ne xam na ne mujj combat am moom vite fait la koy def dem yoonam naka ngay waajee sa combat bi di ñëw dina yàgg. waaw combat bi di ñëw sànni baasi moom lu mu am na lu ma ko wax bu yaroo bu bu ma defal ko lu ndaw bu yaroo na ma defal indi ko lu teng maa ko gën a teng. boo bëggee dégg rek boo toog leen. booy da ngeen ñu jéem a ñaata Grand Dakar <laughs> ñun paasal leen dëkk mais mais soo soo soo soo soo ñëwee soo ñëwee sa diggante yow ak moom si at moo kii kon moo jam moom mënul yarut sa kanam moom ndax bu jàkkaarloo ak yow faw mu jëflante ak yow nee na ma jëflante moom faw mu am ci sa diggante yow ak moom ndax Malick ña ngi ci ginnaaw lu nekk faw mu xeex ak yow. jëflante Malick ña du dara. Malick Niang dara Malick Niang maa koy maa naan si journal bu amul combat si saison bi day bàyyi na ma xaar ko ma defal problème bi bagage ma ñëw tegal tegal ko ndënd man déggoo li moo jësi boppam moo jësi man li ma la wax li ma la bi cinquante cinquante boo demee man la cinquante cinquante tolloo tolloo la diggante séeréer ak ñaari tali séeréer dañoo am cinquante ñaari tali am cinquante ñu tolloo ñu tolloo ñu ñëpp yemal bu subaa bu lamb dinaa ko woon parce que moom combat bi lépp lu mu ko jëlee jaral na ma ko mais combat bi fan la la toll. combat fu fu bëri la fu la ma toll ba bugaan nga wax bugaan ngay dani borom teranga yi uh-huh. du jour boobu lu ko lamb ji day am concert Wally Seck comme Wally Seck xam nga xam nga dañuy wax ne dañuy wax dañuy dañuy ne Wally Seck Wally Seck le golden boy de la musique sénégalaise ñu ñëw ñu ñëw ñooy ñànku ñànku Njaay le golden le golden le golden boy man nag maa nekk le golden boy de si si lamb toog leen toog leen boo toog leen aaraba de aaraba lii de yàgg doo gis lii moom Grand Dakar lay xewee boo dégg boo dégg man la man maa nekk le golden boy de la lutte daa am loo xam ne dama koy def day day déranger moo ja muy lan ma nekkee base ba la laa laa la nekk si man mooy samay bagage yu may takk noonu sama bopp loolu dama ko tàmb deret la si man day siisu si loolu loolu da ciy mel siisu si loolu waaw moo tax man la man man maa nekk le golden boy de la l'arène man la mais baa doo ñëw ba mu nangu ko tous dërëm du xew. moo jëm mënul nangu dara si man. tous dërëm bi gars yi ah, gars yi loolu lañ jëlee signature ba mu métti. moo jëm bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee signature ba du ma ko may du ma ko may dara. du ma may dara lu leer laay tegal mais état de forme bi état de forme bi fan la waaye état de forme yow gis nga. yow gis nga gars man sama gars yi la ñu apprécié lu ñu man sama sama yaram dama ma ko jël def ko loo xam ne bokkul sama yaram man sama samay samay dool daf may fekk chaque at daf may fekk sama poids du ma fekk mais du ma ma nekk di jafe ko li mbëri di jafe ko du ma ko am ak lekk tëdd nelaw moom laa am. instant bi ñaata séance ngay def par jour. instant instant instant def. deux séances parce que combat jege na ba pare. Mhm. lépp lu ñu def si ginnaaw pour am doole mënatuñ ko def instant yii nii pour am mhm. doole. mais fan dafa am loo xam ne dafa xew da ngay jékki ba combat bi des une semaine wala combat des deux jours ñu ne la mbër bi bayal sa est que loolu yaa ngi xel bu baax. baax a baax a baax man de loolu mosuma dal si te ñaanu ma yàlla mu doy ma si combat parce que xam nga. suba suba suba lamb lamb dafa nekk loo xam ne ni lamb li gën a jege a wàññi sa di gën a noppal di gën a bàyyi wàññi danger bi waaw loolu lañ koy def chaque instant waaw waaw loolu euh, moom dañ siy bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ne suñu coach su coach su pek muy coach mbay fa ñoom ñu si siy bàyyi xel waaw xam naa ne fi mu toll nii gars yi fi mu toll nii nanguwuñ bàyyi sax ñu def ma jox leen benn deux minutes après ma bàyyi la ñu tàggatoo woo gars yi ñu dem. ay kaay leen du dëgg mbër sama doxee sànq maamu ba mooy wër. caat piir daan day bare kaay leen ñu takku mbër sunu doxee seen koom maa nga bañ caatawu sunu mbër laay mbër piir daan day ay waay caato caato mboru piir la daal yow caato wee ñoo ngi la woo sama waajeeyi bakk naa la yaay daane sama waago lay ñu naan ñu naan caato caat ndigili day bonde caato caat caatu caat ndigil day boote bilaay caatu caat sampiyoolo ñoo bokk dëkkandoo ci ñaari taalibe xameewuñu ko lu dul liggéey ngir mën a daan ñu nekk ci kanamam gëmal yàlla dina ñëw ay caatoo caat affaire bi looloo wooy maa ngi nuyu sama gaay yi nuyu sama gaay yëpp waaw bëgg naa li mu wër waaye salaamaaleykum yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu di leen ni ki mooy mooy Aliou Cissé waykat yi mooy seen mooy seen coach ñoom ñëpp dafa gars yi waykat yi waaw futur booy Bambara nag moo ngi ñëw maa ngi nii dafa gars booy toog leen gis ngeen ni leen koy defee ci Wassare Lamb xam naa ne lii moom lii moom moo ngi am ci émission lii moom mooy ngi am ci émission mais mais mais su ma gisee gars yi nii nii ñu respecté affaire fonk ko mobilisation bi fan ngeen ci toll. waaw mobilisation fu ñu toll moom man daa daanaka sax man de saa ma si wax quoi parce que boo demee man amatuma dara ma si wax gars yi ñoo ma gën a seen bopp. gars yi ñoo ma gën a ñaatal si kaw ba suuf si kaw ba suuf dañoo bëgg làmb yi nga nga nga ñaay bopp biscuiterie xam nga nga joxe ay waaj ay liberté liberté 4 liberté 6 ñu waaj combat moo tax man la man fu ma doon ni mobilisation doole parce que boo nekkee man obligation mobilisation ma ëpp doole gars ñoo namb làmb te secteur bi ñaata la fu mu ñun ñu raflé wu ñu mbër de raflé raflé wu ñu mbër ñoo xam ne ku ñu jàppale teetal ñu la ñu rafetlu instant nii. Serigne ñu jàppale parce que mbëri nekk si si banlieue dañu teg loxo ba ñu dem. noonu suñu maan la ñuy ak suñu doole ak suñu gëm-gëm la demee ñun kañ jàppale instant mu ñu loolu ñuy ñaan fu mu toll ñuy jooy. mais rafetlu ko rafetlu ñu caat ñu bàyyi la nga nga nga ci combat lan nga ko yóbbante. waaw li may yóbbante mooy Modou Dieng dama koy ñaanal rek. yàlla may ko wér may ma wér may ay mbokkam mer xam nga ba le jour ju le 11 juillet yàlla may ma ndam si kawam si kattanu suñu borom bu yàlla noonu lay demee. mooy teg lu métti wala da nga koy yëre. déggoo li ma la wax la wax déggoo la bu yaroo bu yaroo ma defal ko ma ma ma defal ko lu ndaw bu yarul nag may ne ko lu teng. Eh, wool gaay yi wool gaay yi ñu tàggatoo bàyyi booy def ambiance ñu tëjee ko. li may li waaw li may ma li ma li may woo maay maay jiite si nuyoo bi di woo ki di woo sama madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng maa ngi koy mu jàpp si combat bi di woo mais mais en badis maa ngi koy woo xam nga su ma jógee foofu ta maa ngi woo maam Thierno mu jàpp si bu baax a baax di woo Djibril Wade maire maire ñaata la maa tey di woo di woo sama di woo di woo sama di woo sama papa sama sama lépp Pape Mayel Diop maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi bu baax a baax baax baax xam nga di woo di di woo tam dooro di wax Doro tam. gis nañ participation mais chaque jour moom day jàpp chaque jour suba ngoon gudde ba day jàpp amu amu amu amu amu si taay di ko ñaana yàlla may ko gudd fan ak wér xam nga di ñaanal baaba fu mu nekk tam yàlla na ko yàlla teg fu mu nekk yaa ma gën a xam mooy loolu yàlla na ko yàlla teg fu mu nekk yàlla mun na ko yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def xam nga xam nga di ndeysal ndeysal moom ndeysal moom ko amul ma ko parce que moo xam ne li ko war bu baax a baax a baax xam na li ko war di nag sama ko ñoo ñaar ñoo xam ne kenn lañ si man muy xayta sek sérieux xayta xayta bu suñ baara maa ngi mu jàpp si combat bu baax a baax baax ak Ami Gueye Ami Gueye bu suñ baara mu jàpp si combat bu baax a baax a baax Tarba Mbaye tam woo tam ñu ngi koy woo di woo waa député yi Baye xam ak Galas ñu ngi koy woo ak ñoom Abdou Galas ñoom ñëpp ñu ngi koy woo xam nga di woo waa mafia mafia salopard mafia sab sab xam nga di woo ñëpp a ngi ñëpp waa Grand waa zone A waa zone B xam diwo di woo waa Bata bàyyi ñu kenn di woo gara sama grand Khalifa Ndiaye xam nga di woo sama grand Khalifa Ndiaye bu zone B bala di woo waa Bental yëpp bàyyi ñu kenn képp kuy bëggee caat caat mu nga lay woo xam nga bàyyi ñu kenn di woo sama mafia bi nekk États-Unis nag waa Brooklyn waa Brooklyn maa ngi wax ñu jàpp si combat bu baax a baax di jiite si nuyoo bi nag sama yaay mama Dieynaba tati Dieynaba borom États-Unis borom ceeb yu neex yi borom maa ngi lay ak say doom ak sa jëkkër ngeen jàpp si combat bi baax a baax parce que yéen laa parrainé combat bi di nuyu papa ma fa nekkoon papa Mamadi ak jabaram tan biyaam ak ay doomam ñoom Ousseynou ñoom Tafa ñoom maam ma ñi ma jàppale ma nekkee foofu di nuyu personnel target yi international sénégalais yi nekk foofu di si nuyoo père père père maa ngi jiital bu baax père Mamadou ak ñoom Moussa ñoom Antoine Baaxum xam nga ñoom ñoom ñoom Pape Mamou ñoom Matar ñoom Brice lu ñoom ñëpp su ma limee du duma du ma juumee dama du motala di remercier nag di remercier di remercier ma particulièrement nag sama benn di remercier particulièrement nag benn groupe WhatsApp Ndefleng bi ma bokk Ndefleng Mboxo yaay mais xoya no ko mbafe no fofu nga sikte no fo len Ndefleng wa simo leng te bu nu fo na Ndefleng te defo te koor mais xoya mu gar sikte ko mbafane nun damten gyal nun sikta la mo jon sik an ko mbam ko mbam na yakar an yakar imbar mo jote ndam suma joge suma joge foofu nag suma joge foofu nag fi may fi may fi may terminer mooy maa ngi sant maa maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant sama soxna bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax madame Sarr maa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di sant samay goro yi jàppale nañ ma xam nga côté bu ne nag taxawoon nañ ma côté bu nekk xam nga di ñaanal bébé Isa nag bébé Isa sama taw bu góor boobu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def mag boo xam ne bu ma fekkee ay njëriñ waaw may ko gudd fan ak wér gu yaram xam nga di nuyu ñi di nuyu ñi ñëpp booy ma àndal ñëpp ma kenn di nuyu sama fans club yëpp waaw ak papa muuma mu ngi nii bës la bëgg waaw moom kii moom moo ma si gars yi moo ma gën a sonal lépp bi ma nekkee bu mu nekkee bu mu nekkee mu mu mu ngi ci man xam nga ak sama ak beneen booy boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla génneewu fu mu nekk muy Papa Séré ñu ngi ñaan yàlla génneewu fu nekk xam nga booy erreur jeunesse day am rek xam nga erreur jeunesse la quoi mais nekkul loo xam ne tam ñu ngi ko koy ñaanal pour mu ne noonu bu mel mun a àndaat ñun xam nga di nuyu booy yëpp mafia bi bàyyi ma kenn ñi tam ñi tam dama ñi tam dama bu baax a baax baax yaakaar bu baax deni sant bu baax a baax baax baax waaw ñoom moom ñoom maam Cheikh ñoom ñëpp mooy loolu kii nag mooy xale xale xale capable la gis ngeen gis ngeen noonu lay demee noonu lañ koy defee dinaa bàyyi maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. incha allah bu soobee yàlla day ñëwaat si lamb parce que moom instant mu ngi mu ngi mu ngi trois combats trois combats trois victoire instant yi dañ koy ñaan mu dellu si parce que dafa amoon lu ko teewoon mais instant loolu jeex na jàmm mais day ñëwaat si jàmm dellu si waat si jàmm suñu mag tabaat tam ñu ngi koy ñaan mu dellu si waat si lamb ji. Saloum Boy tam ñu ngi ko ñaanal yàlla may ko combat xam ñu nekk si écurie ba ñoom Yankaawo Boy Dakar ñi fa am combat yàlla may Julle waaw ko yàlla Lagos tam yàlla ko yàlla may si ak général tam yàlla ko yàlla ndam di ñu ñaanal ñoom ñëpp ñu wax si la famille daal waaw ñu nuyu sama mbokk séeréer yëpp waaw noo foole séeréer ba mais koy nu ndam nu noonu yaakaaru ji le onze Babou Sala ji ak Ibou Ndiaye Jekumba Alpha Jekumba Grand Mbagnick Jekumba ñu salalen tan o yaala ceyin ten ndam parce que combat ke fof den bo ngolo leng fop juin ref mois de juin o yaala ceyin ndam nu seede nuun yaxa nu yaxa toon lenga fene no iwen ziara no maak toon bëgga nuun jërëjëf waay gis ngeen noonu lay demee ci Wassare Lamb balaa ma tëj damay bàyyi gars yi ñu def tuuti ambiance aadama tëj ak loolu kan laa jox yoole yoole yoole àtẹ̀yẹ̀dẹ̀ yọ yọlẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ àtẹ̀yẹ̀dẹ̀ wà wà yọlẹ̀ àtẹ̀yẹ̀dẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ àtẹ̀yẹ̀dẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀ yọlẹ̀. John, yes, not doing in there. يا لله